Baye Fall yu tedd yi waaye ñu ngi siyaar bu wér wér waaye di am mbégte bu baax a baax barke moom Sëriñ Fall waaw waaw waaw di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké bu yàgg fi loolu te ànd ak wér si Cheikh Jimba Fall waaw yàgg fi loolu te ànd ak wér waaw waaw bi tamit tey fii si Angleterre waaw mu nekk bés bu waaw kawe daal si jëmb Baye Fall yi waaw ngir Cheikh borom digal moom moo fi war a teew siyaar si si ndongo yi waaw ñu am si mbégte lool di ko ñaanal yàlla tam mu yàgg fi lool te ànd ak wér barke Sëriñ Tuubaa Mbacké waaw di wax alhamdulilah rabbil alamin daal waaw ndax réew ba sa sa yaakaar tey la si loolu beneen dellu beneen xeetu tawféex la. waaw baykale moom mooy jëwriñ bi moom. taalibe ñu ngi leen di siyaar bu baax wax dëgg yàlla moom daanaka maam a wax na lépp. te daal dañoo bokk lu ñu mënta séddoo daal. ci bi daal ñun daal li ñu gëm daal mooy góor ga góor jàpp ci góor rek. góor jàpp ci góor góor jàpp ci yàlla. sëñ bi moom du jaawale jëfu kenn ak moromam di sant tam suñu seen ndigal te di ko ñaanal mu yàgg fi lool ci ànd ak wér ndax sa kilifa di déplacé wu di ñëw fekk suñu fii suñu jëm yu ñàkk solo gi daal wax dëgg yàlla daal nam ñoo dimbali daal moo tax waaw ñam nam ñoo dimbali rek tax ci ñëpp waaw amul leneen am dimbalam la daal lépp jàmbaaru kenn waaw du jàmbaaru kenn wax dëgg yàlla ci sant bu baax échauffement. nga baax jaajëf jaajëf ak i sant yéen tamit vraiment jaajëf moom. sky. jërëjëf Fall jërëjëf Fall